Rewmi 24 TV. dañ leen ak jàmm samedi 12 août 2023 na Cheikhouna Billahi Mbacké yëkkati ay révélation yu day waar daal di koy teg ci ndoddam ki nga xam ne mooy ministre de l'intérieur Antoine Diome moom mii di Serigne Cheikh Billahi Mbacké ma ngay wax rek ay révélation yu day waar jëmale ko ci Antoine Diome ma ngay xam ne ne kii di Antoine Diome Serigne Saliou Mbacké mos na ko yónni ci moom moom moom mi di Antoine Diome boobu Antoine Diome ma nga ca tribunal bu Diourbel ba leen Serigne Saliou yónnee moom muy di Serigne Cheikhouna Bilahi Mbacké mu àndoon ak Serigne bu jenn ba ñu demee rek ca tribunal de Dakar gisante ak Antoine Diome wax ko li leen Serigne Saliou Mbacké yónni waaye Antoine Diome dana leen li leen Serigne Saliou sama yoon nekku ci te aw ma seen jot mu daal doon ay révélation yoo xam ne rek métti na ko moom mi di Serigne Cheikh Bilahi Mbacké ma ngay xam ne nag kon tey jii bu fekkee ne Antoine Diome dafa wër di mbubboo Serigne Saliou bi di ko tudd fu mu nekk rek kon loolee daf koy jaaxal te ba ko Serigne Saliou Mbacké yónni ca moom ca tribunal bu Diourbel révélation information yi la ko Antoine Diome tontu mu doon lu doy waar loo xam ne Antoine Diome dane ko sama yoon nekkul ci li leen sëñ Saliou Mbacke yónni waaye it awma seen jot benn yoon moom Serigne Cheikhouna Billahi Mbacke mi moom moom moo def poste boobu ca face face ca page Facebook am di xamle yooyu la révélation mu doon lu doy waar